ñaan suñu borom. ñu ñaan suñu borom. mu wàllu ak ndoxum jàmm. mu wàllu ak ndoxum jàmm. nawet bu barkeel juddu jë. nawet bu barkeel juddu jë. loolu mooy ñaan. loolu mooy ñaan gi. jeex na tàkk jeex na tàkk. nanu góorgóorlu bu baax nag. nanu góorgóorlu bu baax nag. dugaat. dugaat xam ne dañ doon yees dañ doon yeesal suñu jaay xam ne dañ doon yeesal suñu jaayante xam ne itam dañ doon fettli xam ne it dañ doon fettli suñu laxasaay sax dakk ci li ñu indi ci li ñu fi indi bu jaamu yàlla bu jaamu yàlla ak liggéey sëñ ak liggéey sëñ Touba loolu rek la loolu rek la jërëjëf jërëjëf jëf ñëpp gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp ndax dëgg yàlla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 ne ne. waaye mel na ne. kenn bàyyiwu ko sa morom. kenn bàyyiwu ko sa morom. bàyyiwu ko jàngkat yi. bàyyiwu ko jàngkat yi. kenn bàyyiwu ko sa morom. kenn bàyyiwu ko sa morom. kon loolu alhamdulilah. kon loolu alhamdulilah. loolu lañ ci bëggoon. loolu lañ ci bëggoon. loolu delluwaat ci sëriñ bi rek. loolu delluwaat ci sëriñ bi rek. lépp. suñu lépp. ñëpp ñëpp la ñu. li ñu wax ci sëriñ bi. waaye jaar na sañ naa ñaan moom. waaye jaar na sañ naa ñaan moom. ay jaar rek la ñu. dafa ay jaar rek la ñu. suñu suñu ay jaamam. mu andi nu fi. mu andi nu fi. ñu jaamuloo. ñu jaamuloo. loolu moom yoon nekku ci. loolu moom suñu yoon nekku ci. yàlla moonu moom. yàlla moonu moom. moonu moonu moonu fi andi. moonu fi andi. sakk nu. sakk nu ñu jaamuloo. ñu jaamuloo. kon jaam gi mënut a ñàkk. kon jaam gi mënut a ñàkk. jaamu gi mënut a ñàkk. jaamu gi mënut a ñàkk. waaye nag loolu lépp. waaye loolu lépp. sëriñ bi mooy kii lu doy. sëriñ bi mooy kii lu doy. suñu digganteeg moom. suñu digganteeg suñu borom.